ودود كلي أبدا بالود ودامني أدر وكد ودود كلي أبدا بالود ودامني أدر وكد asalaamaaleykum mbokk yi tey la àllarba ñaar fukki fan ñett ci weeru tamxarit ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñett ci gàddaay yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dëppook benn pan ci weeru sàttumbar ci atum ñaari junni ak nit ak benn ñaar fukki fan ak ñett bokkul ci lim yu fàtti lim bu rafet la kon tey ci ba ji rafet na li ñu ciy tere tere wàccandiku mooy ko ca watu wala ko ca tàggoo wala ko ca sangu wala ko ca fóot ñaanuk bis bi yow yàlla yàlla na nga def dund gi muy ndollal ñeel ma ci wépp yiw yàlla na nga def faatu muy noflaay ñeel ma ci wépp ay allahuma jaxalil xayaata ziyaadatan lii fii kulli xayr wajaalil mawta raaxatan lii min kulli char xaddisu bis bi jëlee nañ ci ibnu abbas yàll na yàlla gërëm leen mu wax ne yonent bi salallahu alayhi wa sallam su masaana seeti ku tawat nekkoon na di ko ñaanal ñaan gi muy lii du dara lu dul lu lay setal ci bàkkaar ndéem soob na yàlla xadis bi buxaari yi moo ko génne an ibni abbas radiallahu anhuma qaal كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على من يعوده قال لا بأس طهور إن شاء الله أخرجه البخاري مد سلامك بغير ودي لمن ما نلساك القديم مد سلامك بغير ودي لمن ما